sa dund dund fii. ci nit alaxira la demal. boo defee point rek ma ñëw. yow ñànku yow daal. ah foofu soo may sa loxo bi xañar yow mi dafa soog saabu de. da ngay soog. dama ko raxas ba mu set bi doog a génn. yow eh ba eh, la sa càmm ngay la ngay laaboo dajoo. xam nga <laughs> yow eh eh eh. yaa ma gën a xeeñ. yaa mi dul sangu. foo yow da nga xam xet ah, yow. yow mu si foofu si xañar trop. voilà acca li topp boo ma ko waxaatee ci douche bi ngay dugg. Pape man li may wax sa waxuma ko. li ma ay wax benn la kaddu la du ñoom ñaar ay naa la wax benn ak ñaar man numbe bu fi ñëwee man indiwuma ko fi. wut xaalis fii la gars yi da nga bàyyi naan bàyyi naan léegi carte xaalis de hmm. léegi maa ngi maa ngi ci wér di dañ maa jox benn lim quatre cent quatre cent trente deux damay def deux def trente doo xëcc quatre cent yi xasuru na mu ñëw pour xëcc. alal xaaj bi di ñew hmm? neena damay xey suba rek alal guy tour nan lolu lo neex na wa xam nga ni mi demee lolu hmm. loolu affaire fan man defee. wala affaire bu nu dakal pour Fuuta bi. Hmm. neena dina la may deux cent mille. na dana ci bir da la koy may. duma la nday lolu baax na ma duma la nday lolu ñun ngay waxal wala pour Fuuta bi. ah moo ma jaaxal ngay wax ay nday lolu duma salaay deux cent mille amu ko deux cent mille lan lay jox laalu fa deux cent mille nan pare nga jëm ci biir ma topp ma ma ma ma ma ma xool lu ñëw wala eh eh ko man ah du ko ne yaa ñàkk fay la yow yow sa xale day yegg du ko ne yow say awra ngay wanante ak ñànk dama ragal lool man defet defet laa bañ fa wuy ma man day ñàkk woon ko ko loolu loolu ja togg cité la jàngaray kajoor la sa paq yi lay jàpp di gis naa la nag yow tamit jëmi indi rek sa biir ne ne ki bul noonu waaw moom siti tax mu siti la mu siiw leeni dànk ngay oh, siiw nag da ngaa teel du foofu di sëy amoo fa doom métit naa métit naa rambax lambax rambax lambax waaw ra rambax la rek di sëy amoo fa doom métit naa métit mooy njëkkee toog la tax bungu la bëgg nga la ñu sol def sa xam nga dégg ma dégg ma dégg ma la xaal ma xaal ma la xaal ma la gën nga da nga fossé adam fan jël sa bel pat wen tay mu jël sa bongo wallahi asim so vraiment sa xuli lay jël tare la <laughs> li amu fi amu fi amu fi dama nekk ay dama nekk ay liggéey ay amu fi añ amu fi añ amu fi wala déggoo wax ji kër gi boo xaaraanewul doo dund

damay dem. ma ne la Doucouré laa ma xula xula jeey. ma xila xila jeey. xila jeey. xila jeey. kan bàyyi de. kar kar kil kil kil kal kal mbax kil kil kil kil kil mbax ka kasta kul ngul آه. كل مقطع كل جنس مقطع ساسا كل قل ولا مقطع ولا بند مقطع ساسا كل قل كم كم تاس ما جند سل إني إني يحوج حابا صفحة دياك ودوك يا حادي <laughs> أنا غاديك da ngaa dégg. doy na doy na benn obi. sàmmin wasako wasa wajam sako lobal. waaw bu dee robe la nga sol ko man moom def na yàlla apprécier yombul sama mbir. man de xoolal bu ma ëree yow da ngaa da ngaa pousser yow. waaw déedéet waaw defal naa ko defal naa gis nga yow. gis nga yow kii. dof boobu sama saa ko sama sa ko fa kaay ko fa kaay kaay eh eh man man wallahi may ma suma suma gën mu gën ko fayda yow nga bàyyi sama sa nga xees sama sa bakka kon nga dak sama sànni ko suma gën nga gën sama sama tengaa la gënoon lekk jekk sa tengaa fay wala kii ñaan mi man dama yaakaar man xale laa war la man waxi do yow tamit yow de bu kër gi boo boo toogee fii ci kër gi di jaayante ak ma fekk fekk ma ci bi maa ci duus bi ma ci duus bi ñëwal waaw dama sëy dama sëy bëli da ngay tuul dama lay éliminer man xam nga man ngay bon ma cee gaaw ah éliminer billahi bàyyi la ma ngay tëdd di nelaw ma jël corde fa góol góol la du bàyyi sama loomu góol ba mu tëdd la soo ko defee ñu fi tapé la su fekkee góol yàlla nga da ngay da ngay woote ndaje man ak yow ñu face à face ku moom sama sama eh eh eh eh eh teg sama boo ko waxuloo ñett yi ma ko tegi daw mais daw ma xamay yow am bés sën eh, eh. ñanku da ngaa bëgg a sawaay da ngaa bëgg a xar wala man ma la bëgg a xar man lagaluma sa da ngaa bëgg a xar wala waaw ma doxal du ko la yow mooy sama waxuloo ak yow du ko la compter parce que ah ini mu dulu. kii day daf la dara jot yow ñaan ko la lébu yow lébu yow nekkoo lébu nekkoo lébu jël mu ne sa siisu yow kañ la mos a am problème maa yow maa yow a jotee maa yow ma ba ba ba ba ma tuut sarangoñ loolu daa mos a am ah, ah waaye yow xaalis ko dugg ci kër gi hmm. ngay fréquenté si kër gi hmm. lek nu lek bu stable nga jël moni diko di diko diko di ko di mu génn ana lebu wa wa yow xam nga bu ma pisse ci mindi nga xol ma xol la ma pisse la do arrêté. pisse ma ak ah, ay sama wé nga piis ma. ñëwal. yaa samba saa ñaa. voilà doo pour que lin sa ba saña ya ci do ko am ba te ñebe la mënta ba ya sa ba saña jaaju doo ko am ba toña ba la mitu waaw ah la ma gëmoon ma waa bàyyi ma def waa jël ma def ba kay baax na baax na baax na soo pissé ma dem baax na jël ca sama sa ñaaw jaaju doo ko am ba toña ba la mitu yaa ko lax de ko asef asonda sodo de yaa du pul sa la jaa tël kii moo du bënd du toxo kan doo ko jàppas xaalaan bëla wax la kalkata yumbe wax la kalkata yumbe